Euh, wax dëgg yàlla bu fekkee dañ ko jox responsabilité bu toll ni ministre de tourisme ak fii réew mi toll euh, moom dem na fi élection maire ñu dóor ko fi dóor yu méttee mett yoo xamante ni kenn xamul nu mu toll jàpp naa ne loolu victoire la boo xamante ni metti na ko lool ci at mi metti na ko lool ndax bi ñuy dem élection ñi waa APR tànnoon mooy Ablaye Diop Sarr mais nag moom rek moo dugg ngir ruube ko bi ko safaa si seloo bëggee ne day def APR day dem candidat daanaka danoo taxaw temm ci wan ko ne ko doo dem ba yàlla dogal ca lam ca dogal Mame Mbaye Niang dem ñu gañe ko gañe bu metti comme moom ni mu doone sën nga xam ne ay Barthélemy ak songo Sonko ñoo ñu lay xaw a nattengool waaye Mame mbay Niang mënul la ne dara lan ma masa fal loo xam ne askan wi ñoo ma ko fal fii askan wi askan wi ñoo ma ko fal lu mu ko fal rek mag Sall moo ko fal moo ko falaat moo ko fi def ministre CNSA def ko fi ay ministère yëpp euh, gis ngeen ko daanaka parti ba ña fa gën a boole nañ ko moo Thérèse Faye yaakaar naa ne amoon nañ fi ay coow bi mu yoree ministère kii bi ba ay cas am ci beneen bi ci desaat euh, Mame mbay Niang day wax ne lii muy toppee Ousmane Sonko koo xam ne dañ laa jox ministre tourisme réew mi ñu yaakaar ay tourisme ñëw ci dëkk bi ñoo xam ne dañuy ñëw ngir wàcc fi seen alal nga war a lijjanti problème boobu problème boobu nekkoo ci lu du di lijjanti li Ousmane Sonko li ko Ousmane wax nag li ko ci gën a métti mooy nilaar nga xamoo dara jàngoo diggoo France mais bu dee affaire alal jii rek métti na ko gaa mais li ko gën a métti mooy loolu te Mame nag dañ ko xamee ci Euh, wax na fii ne waat na ci yàlla ne Macky Sall bu demee troisième mandat du ko jàppale yéen a ngi gis audio yi nga xam ne mi ngi tàmbali di génn muy wax digganteem mag Amadou Ba waxoon na ne Amadou Ba génn na fii ne amoon nan ay diggante yoo xamante ni kii na benn Mame Mbaye Niang li man ci waat barkeb alxuraan wala mu tudd billaahi wala waaye mësul wax ne day wax na benn rappal ëppeen waaye billaahi wallaahi taalaahi mësumaa lekk benn dërëm boo xamante ni ci dërëm bu mu moom la lool moom waxugu ko kenn dégg ko te loolu nag moo gën a wér ci digganteem ak yàlla ak digganteem ak boppam moo gën a wér fii ci àdduna gën a wér àllaaxira même bu fexee ba fexe ba am dëgg ci mbir mii tëj ci ay journaliste ak def ci lu nekk bu boobaa na xam ne leneen li ci desaat digganteem ak boromam la loolu la war a gën a leeral ci mbir mi mu leer benn wax na ne Ahmed Aidara dégg ngeen caat ñu waxoon ne daf koo kii caat daw génn fii caat génnaat na demantir ko ne ko man dawuma wax ko ca mu ko ci bëgg wax beneen bi ci was nee na Ahmed Aidara wax nañ ko seen TV amoon na fa Ahmed Aidara comme xaaritam la moo ko ñaan ne ko bàyyil mu bàyyi waaye léegi te ñi ngi wax ne lii mbir mii muy waxante Ousmane sonk waajuram ñaan na ko ci nit ñi wax nañ ne waajuram ñaan na ko ci mu lànk kon xanaa dafa amut bëggul rek xanaa kon am na leneen lu mu bëgg jàpp naa ne keneen ku ko war a gën a mën a ñaan mu bàyyi mbir teg ko ci suuf mooy waajuram te Mame Mbaye Niang taxaw na fii ne képp ko ànd ak Ousmane Sonko te baat boobu dama koy baamtu lu bari ku ànd ak Ousmane Sonko moom ci dëgg boo dee kilifa diine boo dee imaam ànd moom ci dëgg boo dee kilifa aada àndoog ak moom ci dëgg loolu jàpp naa ne moom la war a gën a veiller ci àq jooju ak wax jooju baat yooyu mu teg ay gor ay jullit yu ànd ak usmaan songo ay borom yu pas-pas ay borom yu pëse mu wax leen classé leen comme noonu ne ànd noog ñoom ci dëgg jàpp naa ne mënoon naa xuloog Ousmane songo lu mu bëgg a xuloog moom lu mu bëgg a waxante te lu nekk wax na ko Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo dem site boote Ousmane songo moo def nangam fekk na nangam ci moom lim ko fi wax kenn kenn xamul nu mu toll ci baat mi Touré mii lu nekk lu nekk baat yu nekk wax na ko lu nekk daanaka moom palaat bépp ak politique am mooy toog. di xewal intérêt mag ay politique amul base politique sax amu ko njaareem gi sax xanaa moom la waroon a dikk boog de moins ne def fii xëccoo maire wala feneen ak yooyu hmm. mais mosoo dégg fenn fu mu wax plateau yi daal ci lay toog beneen bi ko méttiwaat 31 décembre li ko ngañ maître ngañ dem ba def loolu moom du ko fàtte li des ci avenir niiram ba kere jant bi di sox ba kere jant bi di fenk du ko fàtte ndax nguur si da koo kii ku xam ma mbay ñang ak kii dafa mujj déclenché wu ba nga xam ne boo ko xoolee da ngay yëg ne kii wax di yàlla lu nekkoon ci moom ci xeetu xam-xam wala xeetu défendre jeex na tàkk ngóor si da ko yóbbu ba sero ba mu wàcc sero wàccaat sero wàccaat sero nga xam ne yooyu sëñ bi moom waroon na tal ak président ak sàll mi nga xam ne moom ci njabootam la nekk te dégg ojo yi di génn ak yeneen ak yeneen waroon naa wax coow lii mu jeex coow li nag loo ci loo loo ko attaque ak loo ko gën a mën a def xamal ne yéene la joo xamante ni day dellusiwaat te it nii nu def usmaan Sonko yow nga jàpp ne def ko usmaan jàpp naa ne loolu te xatal nga sa bopp ci mbedd yi xatal nga sa bopp ci kii bi jàpp naa ne fenn fooy dem nit ñi di la tàccu yaakaaruma ko de romb ay nit rek ñu sàcc ko kee moo defoon lee moo doon yóbbu Ousmane Sonko yaakaar naa ne loolu doo ko amati ci sa carrière politique doo ko amati sa carrière politique jàpp naa ne bàyyi woon mbir mi mu sedd nag moo gën nga toog def ci benn jógee fële Ousmane Sonko dafa jóge tribunal ne day dem def conférence de presse ñu aaye ko yow dem ne da ngay defi conférence de presse ñu bàyyi la te pourtant ñaar ñëpp li Ousmane di peese ci réew mi di ko peese ci Sénégal peese woo ko Ousmane nee nga xale yi bàyyi nañ ko jàppatuñ ko kii nañ ko Ousmane de jàpp naa ne yow kay damaa jàpp ne yow la nit ñi bàyyi waaye Ousmane kay wax dëgg yàlla kenn bàyyiwu ko bàyyiwuñ ko de xale yi ba léegi loolu ñuy wax tey la waalo gën a ay tey la waalu gën a ay waxati tamit tamit ak jow ma jàpp ne man défendre sa <clears throat> sa idée ak sa nangam mais Ousmane dafa wérul jàpp naa ne wérul ndax parce que moom mi ngi yor téléphone yi yow loolu man koo moom boog loolu wax dëgg yàlla loolu loolu est-ce que koy gàddu di ko yóbbu tribunal naa leen bi nga ko dugalee ci oto bi ak Ousmane wérut wala nangam. yow kay lii ngay défendre lii ngay kii loolu ci nga war a yem mais di topp nit ki ba bu añi bu defee conférence de presse nga ne wax na fee nangam la la leen bëgg a dëgër la leen nangam yow kay défendre sa benn cause rek mooy lim ma waxal du dëgg waaye yow bu defee waxtaan yow yaa koy gën a topp yéen promotion bi ngeen may Ousmane Sonko mi bu ngeen ko xamoon wallaay dootu leen ko mayeti benn benn benn benn politicien dootu leen ko may ndax wax naa ko maanaam Ousmane li ko yàlla def ci xolu nit ñi yàlla dong moo ko mën a génne ci xol du benn nit bu mën a wax ci défendre ci maanaam ci benn façon ndax Ousmane yéen da ngeen a xamul ne li leen ci naqari ba ngeen koy wax naa du wax dëgg ak du wax nangam ak di ko wutal sikk yu nekk Robert laak kii laak Salafis la yooyu leen ci naqari yooyu moom moo neex nit ñi ci moom. lu leen naqari ci moom rek loolu fa ngeen tàmbalee ci naqar loola la nit ñi tàmbali mu neex leen ci moom. jàpp naa ne kii mbirum yàlla mi ko teg ci xolu nit ñi yàlla dong moo mën a dikkaat faxasaat ko ci xolu nit waaye du du politique du keneen du keneen kenn mënul daaw ko ndax moom mbir mi sax xamul ne nit ñi yàlla ni ko yàlla def ci xolu xamul lan moo tax mënul ne sama njàng la mënul ne sama famille la mënul ne sama rafetaay la mënul ne sama communication la ñu ko dàq communication mais nag mbir mi yàlla la mbirum yàlla la mbirum yàlla la yow di nga ci sonn Euh, kii ci te wax dëgg yàlla euh, doo ci doo ci doo ci doo ci rafet doo ci rafet te mënoon nga cee rafet nag mënoon nga cee rafet ndax parce que mbir mi ginnaaw yow leer na la sa digganteeg yàlla sa digganteeg ñëpp xam nga ne nee nga mbir mi defoo ko ah jàpp naa ne loolu jër woon coow li di yàqal réew mi réew mi ku nekk war naa am ki Ousmane songo li mu ko def doy na sëkk ci métit ñaari at ñu taxaw ko ne ko doo génn benn réunion pour que maire bu ñuy def boole ko ci amul dëkk bi mënul fenn fu muy doxi soxlaam ñu ne ko doo fa doxi sa soxla fenn fenn fenn loolu benn politicien su koo daj fii loolu nag dangeen koo fàkkal aw yoon woo xamante ni yoon woowu yàgg-yàgg daf cay àgg yàgg-yàgg daf cay àgg man nag li ma koy digal ñaar laa koy digal Ousmane su ma ko digal mooy ne yokk dëgër lu muñam muñ gi na gën a dëgër lu muñ dafa am ko waxoon ne wa sabru ko faaxa sabra naas ata sa moto bi ilaa ahlal maqaami sa muñ gi kawe na muñu nit ñi mbindeef yépp ba yàlla jël maqaama mu rëy yan la ko te jàpp naa ne muñ ko beneen bi ci des yarxamu man fi lardi yarxamu man fi samaa yàlla nee na ku yërëm ñi ci kaw ku yërëm ñi ci suuf ñi ci kaw yërëm la jàpp naa ne daal Ousmane ñaar yooyu ngay wax amal yërmande ju mat ne loo fekk ci réew mi ci yërmande fexal ba mu boo fi fekkoon junni def ko ñetti junni muñ gi tamit lu la tegal tegal ci xeetu nattoog musibaag yépp muñ ko ndax yàlla kat xari balay musibaal yàlla kat xari balay darajaal ngir baal ko ngir dara jaal ko ngir ëllëg bisub xiyaam ba xam nu ko sëriñ Moussa ko waxe waaw te bala laa wóolu ba jox la mbir yi kat nga àttan yan bi waaw yàlla bala laa wóolu ba jox la mbir yi faw nga àttan yan bi kon nag loolu rek la ñuy wax ñu ngi ñaan yàlla may lu wérug yaram ak wérug diine te may nu yaatal sunu wërsëg may nu mujj gu rafet salaamu aleykum wa rahmatullahi